jëkk yëkkati mooy sant population bu Touba ak Mbacké gërëm sëriñ Mountakha Xaadim Rasuul di ko ñaanal mu yàgg fi te di xam ne victoire bi peuple bi ñoom ñoo ko moom yaakaar bi ngeen am si ñun danañu fexe fexe ba duñu ko tas engagement yi ñu jëloon ak yéen danañu ko fexe ba jéem koo respecté mooy waa Touba ak Mbacké tey tànn nañu gañe nañ Touba gañe gaay nañ tey ba cekkeen mooy wan na ne léegi département bi mi ngi ci loxol wàllu ak yewi gouvernement bi nekk kon député yii nga xamante ñoom la àndal ñu fal ñu dañuy fas yéene incha allah mottali li nga xamante ni moo yéene bi am pour askanu Touba ak Mbacke gis seen bopp ci assemblée nationale te jàpp naa ni cohabitation dana am tey jii ndax département yu bëri gañe nañ ko gañe diaspora bi yaakaar naa ni liñ doon wax sénégalais yi tax na procès boobu noonu moom la ñu gëm mooy Macky Sall moom kenn waxuñu wax troisième mandat Macky demal Sénégal jeex na ñoo yàlla fekk askan wi jeex situation tubaab bi nii lay mën a mel non situation tubaab bi nii lay mën a mel ndax tubaab ay gor ñoo dëkk te bis bu ñu wane ne ay gor lañ tey ji dañu ko wanati